حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير yéen mbokk jullit yi fi daje noo ngi leen di nuyu nuyoo bi nag nee li tax ñuy wax ni ci Cheikh Abdou Latif Diène lay bàyyi ko nee jaar ci rakam ji nga xam moo fi nekk di Cheikh Abdou Salam Diène jëm ci njabootuk maam sëñ daaru ngañ tànn ni nee na ka ca jiitu nag di sëñ Omar tànn ni bi nga xam mooy xalifa bi yal na ko yàlla yàggal nag ci kaw suuf moom mbokkam yépp ak doomam yi ak taalibeem yi nee di ci rek sëñ yi nga xamante ni gannaaw ñooñu nag moo ci mag ci wàllu mbokk gi nee kon nuyoo bi mi ngi ko ànd ak nag bokki boppam yi mu àndal muy sëriñ siidi jenn di taaw sëñ soxay bu jenn di xalif sëñ baara nee na sëñ siidi ma nga nee nee sëriñ naar jenn mu ngi sëñ basiiru sëñ bas asugay sëñ naar sëñ bas asugay mi ngi fi sëñ xaadim jenn mu ngi sëriñ daam jenn daaru nee na mi ngi fi nee sëñ siidi jenn di doomam di doomi magam nee na di doomi magam fekk na ko ci barab bi nee na fekk na fi sëñ Mbàkke jenn doomi sëriñ Basiiru rakkam nee na kon ñu ñëw rek ci cofeel gi dox suñu diggante ñoom te mu jiituñu te jiit seen seen feeñ waaw nee na ginnaaw bu ñu nuyoo suñu baay bii toog di seen wëlëre di sëriñ Mouhamadou Mamoun Amar di ko xam ni kenn du ko laajte ci Sénégal neen rawatina ci biir barab bii mu ñu feeñ ak li mu bokk ak ci biir bokk gi li mbokk bokk ak bokk gi nee na bi ñu ñëwee rek li ñu yëkkati nee na mooy ndigal suñ seen ndigali maam yi moo leen yëkkati ak topp nag seen jeexital nee na tey ki nga xam ni moo wuutu Cheikh Issa ci kaw suuf di sëñ Abdou Latif nee dafa am lu mu ko santoon nee na loolu mooy waral nag barab yu bari léeg-léeg mu sànni fa ay kàddoom nee sëñ Sidi Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad da ko yónnee bataaxal di ko yëgal di ko ubbital jumaa ca Mbuur jumaa joo xam ni sëriñ Cheikh Salih Mbàkke moo ko liggéey teg ko ci kam kilifteefam jox ko nee na mu woo sëñ sëñ Abdou Latif woo sëñ sëñ Soy ba mu ñëw mu ni ko na nga dem teewal ma fa te barab boo rombati ma war caa bokk nag ma fa teewal jotti lit ma samay kàddu nee mu xamal leen ni ndam li nga xam ni si Isaa am na ko ci kanamu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ne moog seen maam ji te ji ngeen di màggalal di sun maam ñoo ko àndoon nee dégg na léegi sunu sang bi wax ni sëñ daaru ngañ tani ni nee na nee na lislaam bu doon am néeg yenn na ca poñ ah kay lu wér la nee ndax ñaari fas rek la war sarixatul mutahara wal xaqiqatul al munawara ànd koog sëriñam ba bi ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dem ci ba dem ba jeex takk daw ci ba takk seeni guddi ak seeni bëccëg nee na waaye loola nee na jural na leen lool ba yowmal xiyaam du jeex du xaaj neex yàlla daa bari le ne soo koy liggéeyal di dox sa kem kàttan ne moom bu lay fay nam toll dana la ca fayee lu bari ba nga gis ko ne sa Abdou Karim ab taawam netti na ko ci Abidjan ni ko sëñ Abdou Karim noonu na ko baayam noon na ko sëriñ Touba Xaadimu Rasuul nee na nit juróom-ñaari ponkal ku ñu yaakaar te sa aajo fajuwul la ñu wax du dëgg ci ñoom bu fekkee yor na aajoy gor rek aajoy gor nag mooy loo mën a jaamoo yàlla toppe ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay sunnaam neen ci sëriñ bii ñuy màggal daw na ba jeex ci lislaam ak ci sunna ak ci xitma ñeer sëriñ Tuubaa ak Seex Isaa ne bañ leen xamee ba nëgëni di gone nekk ci seen biir di leen xam damañ koo seere lu rafet la ne mooy bëgg sëñ Tuubaa bu baax a baax bëgg Seex Isaa bëgg sëñ daaru ngañ tànn nii sëñ Baara Jenn sunu maam moo jëkk a wuutu Cheikh Issa ci barab bii jege woon nañ ko lool jege woon nañ ko lool xam ni muy doxe lool booba seen mag ñi jeexaguñu mu teg leen fu kawe bëggan leen lool bu leen gisee bëgg lool ndax ndax li ngeen doon ci kër gi ne defe naa ni ku man ni maa ëpp sëñ sëñ gantani ni Cheikh Issa amul ci kaw suuf wala amul gisu ko fenn loolu lu wér la nee na kon nag lu ñu leen di digal te sëñ baa ko digle te sëñ baa ko digle ndax fu ñuy waxee ci moom lañ koy tënk ne fu ñuy waxee ci moom lañ ko tënk Cheikh Abdou Salam a ngi fii Cheikh Abdou Salam a ngi fii doomi Cheikh Issa di doomi Cheikh Issa dëkk dëkk ak yéen di sëtu sëñ di doom di doom soxna Muslimatu Mbàkka ñuy ñu xam ne ci kàddu ñooña ci yoon wi ngeen jaare ba gone yi mën a dajale mbooloo mu toll nii ba gone yi mën a dajale mbooloo mu toll nii yoon woowu yoon woowee bu leen ko bàyyi mooy dëgg mooy dëgg ne mooy ku mag jiitu ña ca des topp la bañ laa fakkastal di la diglu guddi ak bëccëg nee na kërug diine goo fi dégg muy gën a jëm kanam loolaa ko yokk nee na goo fi dégg itam mu may ne lu xaw a giim xëccoo koy waral te amul amul loolu amul nag fii fi yéen fii fi dara dandi nii nee ndax gis nañ ni yéen ñëpp booloo ngeen nekk benn ndax sëriñ bi nee ndax sëriñ bi sëriñ tubaa moom moo da koo ñaan ne sëriñ tubaa da koo ñaan de yàlla boole mbooloom yàlla boole ñu bañ a xëccoo ñu bañ a xëccoo bañ a bañ a bañ a bañ a puusante a puusante bokk rek bokk rek genn jubluwaay genn jubluwaay ndax lu kenn mënta jeexal ndax lu kenn mënta jeexal defe naa ku góorgóorlu rek doy da nga ci am loolu doy am maamam ndax ki jur maamam moo ki jur yaay nee juram ñoo bokk ndey ak baay loolu loolu tax mu bëgg a gont ngir mën a noppalu waaye waaye nee ñoom lii rek mooy sunu liggéey nee sant na la baax sëñ maam Cheikh ci jottali bi nee ndax wali toll ni sëñ daaru ngañ ku jóg fekk ba ngay jóg ñaan ko ñaanal ko war ngaa a baax a baax sant boole nañ ma gàmm ci Medina Baye nee nañ ko tuddee nañ ko gàmm ci ma ànd ak bokkam yu bari dem ci gàmm ga nee keroog kàddu goo xam ne nee wax na fa kàddu goo xam ne daw na yaram lool daw na yaram lool nee na nee na amoon na waaju baax amoon na waaju baax yu nekk ci seen pays bi yu nekk ci seen pays bi bokkoon ci ñi fi dàqoon a jaamu yàlla bokkoon ci ñi fi dàq jaamu yàlla nee na nee na am benn waay bu nelawoon am benn waay bu nelawoon moom itam koo xam ne jàmbaar la woon lool ba tey de mun ko baa ba tey lenn dong laa gis lu ma fayagun lenn dong daal laa xam ni loolu fii ne mi koy koy jariñoo dem gi muy dem ci xewi diina yi di ko teewee ak di jaxasoog mbokk yi nee na lool day fii ne moom lay dundee nee na na xam ni loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ah, képp koo xam ni nee képp koo xam ni mbiri julit yi itteelu la fonkoo ko fonkoo ko yëgoo ko bokkoo ci man ndax nee na julit day yëg xew-xew mbokk jullitam nee na foofu rek lay tënk seen waxtaan ne sëñ Modou Mamoun mi ngi nii toog ak seen dëkk yi doon waxtaan lépp lu ngeen bëgg a dégg ne lépp lu ngeen bëgg a dégg sëñ gañ mën nañ leen ko wax mën nañ leen a leeralal ci waxin wu rafet ci waxin wu rafet woo xam ni jub lay doon jub ndax kenn ku nekk ne ndax kenn ku nekk déglu naa la déglu na la meraaran xam naa la nekk ci yow nee na xam naa li ne ci yow wóor na ma ni wóor na ko ni lu su mën a jëriñoo lay doon ñu ngi leen di sant di leen gërëm sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal itam ci daraja yi ñett ñu ni boole ki ci jiitu muy sëñ Touba ka ca topp muy Cheikh Issa ka ca toppaat mooy sëñ Daaru Ngagne Tànni mi nee na kon nag foofu rek la yemale waxtaan wi yàlla nañ ko teewee ay at yu bëree bëri saa yu ko yëgee incha allah su ko fekku xat-xat rek dana ñëw dem ci barab bi siyaare ndax li fi indi taalibe ndax li fi indi taalibe yi moo nu fi war a indi moo a indi ñoom ñii muy sàkku barke ak sàkku tiyaabo ak sàkku tiyaabo nee ku ko fi sàkku da ko am insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Sohaybu ah kàddu yi am na solo li nga wax ni sëñ Daaru Ngañ ponk bu mag la ci lislaam loolu lu wér la damay wax ni yonent bi sallallahu alayhi ba mu wootee ñëpp a waaye ña wuju woon sëñ tubaa ca jiitu sëñ tubaa woote ñëpp ñëw waaye ña wuju woon Cheikh Issa ca man Cheikh Issa woote ñëpp ñëw ñu ñëwoon sëñ daru Ngañ ci man kon mooy première yi première yi première yi sëñ Daaru Ngañ tànn nii barke borom Touba loolu moo wér cëng waaw tàllal loxo yi amin amin amin amin amin ak sëñ ñaan nee sëñ bi nee na nga ñaan waaw <laughs> bisimilah sëñ bi nga ñaanal nee na nga dimbali leen ñaan ci doole Cheikh Issa waaw ci waaw amin nangu leen ñaan amin yaa rabbil alamin amin yaa xaaliqun amin yaa musawiru amin amin yaa amin yaa musawiru amin amin amin yaa xaaliqun yaa baariu amin yaa musawiru amin